réseau bi mënul yemb ku juum mais képp ku ñu limul rek xamal na ne vraiment sama xol mi ngi yow li ñu fi indi tey nag c'est le développement territorial dañoo nekk 557 communes si biir réew mi nekk cinq 45 départements bientôt 46 avec Kër Massar ñu nekk effectivement si acte 3 de la décentralisation. ñu jël ay maire confier leen effectivement la gestion des territoires monsieur le maire directeur général de Ourour maa ngi lay féliciter parce que liggéey bu am solo ngay def dans le Kaolack dans votre commune les maires de maintenant ne sont pas les maires d'hier les maires de maintenant ce sont des ministres ce sont des DG ce sont des députés ce sont des cadres supérieurs dans des banques etc etc La gouvernance territoriale de maintenant est très différente de la gouvernance territoriale d'hier. C'est pourquoi nous sommes dans une compétition Les 557 communes sont aujourd'hui en compétition. Et aujourd'hui, par l'engagement des populations de Yoff et particulièrement de Djiribaï, je à l'évaluation la première commune du Sénégal, la première des 557 communes. C'est ça mon ambition, parce que je suis dans l'état d'esprit de cette compétition de territoire. Et pour cela, il faut un travail de terrain. Seul le terrain paye. Le général de Gaulle disait que à la guerre, c'est la géographie qui commande. Si vous ne connaissez pas la géographie, vous n'allez pas remporter une victoire militaire. Mais en politique, c'est le territoire et le terrain qui commandent. il faut nga ñëw xool population yi li nga ñu soxla nga jéem a jaamu seen soxla en 2014 c'était la promesse là que j'avais faite je vais essayer de tenir cette promesse bon képp ku nekk Yoff nga jàppale ma si loolu ku fàtte démb doo gor ku fàtte démb ku ku fàtte démb ñu la xalalee ñi nga jëm war nañ la moytu moo tax ici du haut de cette tribune j'aimerais remercier et remercier madame Safi maa ngi koy remercier parce que bu may dugg cité bi moo ma jël di ma dugal say kër benn par maa ngi koy remercier donc femme de euh, comment dire Djily Mbaye ngeen remercier ma ko am na lu bëree bëri loo xamante ne wax dëgg yàlla xeex na ko amee ko côtés ba muy euh, ñàkk doomam yàlla na ko yàlla yërëm boobu suñu kanam la te c'était pendant le combat je crois que son est là nga yóbbanteel ma ko tam nu yóbboo mu uufal mu baax xale yi mais aussi maa ngi wéeru si yéen jigéen ñi u fàtte démb du góor mais aussi ku fàtte digee bor du góor parce que wolof dafa wax ne yaakaar naa ne sax tubaab moo ko wax du wolof mooy la promesse est d'une dette te góor dëgg du fàtte bor mukk bor moom bu ko fàtte rek ci am problème te am na bor boo xamante ne amee naa ko fi bor bi nag jigéen ñi laa ko amel votre fameuse maison des femmes je vais pas oublier incha ko def parce que mën naa fàtte lépp suuf lu ma amel nit te amel naa loolu waa ji mbay Mais cette cité-là est une très belle cité. C'est Merci beaucoup. Merci. xam naa ne ba xaw yàlla na ko suñu borom yërëm budul moom fi na xumba même euh, les deux trois tours de Ndawra bin maa leen woo suba na leen ne venez surtout pas Djibi Mbaye parce que ki ma ñàkk tey ku ma ku fort la si man koo xamante ne toute son action mu ngi ko def derrière moi sur le plan politique bu dul woon loolu yéen a ngi ko gis fii muy dox comme gars yi bon merci beaucoup maa leen di bu baax.